Fatulaye mm-hmm. eh, dafa important trop mm-hmm. pour ñu bàyyi xel si yooyu noonu waaw gis nga you know um, affaire yi you know um, three after um, eh, set setal bi ngay gis mbalit bi ñun dañ ko attribute si tayle eh, li fi naka tayal understand mm-hmm. because you know da ngaa ne you ci suba moto yi dañoo ñëw up to one o'clock so unfortunately da ngaa ne after moto yi dem ñooñu la time boobu la ñeneen ñi di start di isi seen balit hmm. so loolu loolu loolu daf ñoo daf ñoo sonal trop yeah because non loolu noonu ñun dañ am ino baak first vehicles yi da ngaa gis ne first vehicles si dañoo dem <laughs> second vehicles si tamit am backup mhm. pour ino ñu nga xam ne ino dañoo ñëwaat mhm. pour at least ino améliorer ino façon yooyu noonu waaye ba tey ino ñu ngi ñu ñu ñaan ino at least community bi mhm. ñu ñu dimbale ñu si loolu noonu because da ngaa gis ne comme ça suñ ne génn leen it is from nine o'clock you can just keep it eh, mun ngaa génnee soo déggee piip piip moto bi mu ngi mu ngi mu ngi xoon rek nga génn si rek dimbale ko rek non ngeen def ko seet ko soot ko non si eh, moto bi rek dan is you are good mm. waaye suñu xaaree nag ba moto bi dem mm. ñu isi mbalit bi waat dafa nuroo ni comme ça defuñ dara mm-hmm. so loolu ñu ñaan eno at least eno eno bi pour ñu dimbale ñu si loolu noonu daal mm-hmm. su suñu suñ ne génne leen aneen eno nañ génne in good time mm-hmm. understand da ngaa gis ne you know from from eh, seven o'clock up to nine ten eleven o'clock waaw waaw fekk yow you know génnee nga you everything so su ko defee rek you know moto yi suñ ñëwee mm-hmm. ñu leen foofu noonu tuuti tamit su moto bi su ñëwee rek dafa xoon mm-hmm. su ñu xoona rek you know da ne comme ça you know you ñu mun a you know sooti mbalit bi si lifin ah, one a am eh, Mr um, Dukuré xaaral doguma mm-hmm. ah, dafa am yeneen dëkk yoo xam ne dañ dee def loo xam ne maanaam ku am business si koo tali bi dañoo gis ne yow sa comme ni ko père doo waxee sa bunti bitik fu mu em yow da tilim doo doo ko fa doo ko fa def soo seetoo soo sootlee ah, Angola ak yeneen dëkkay fu mu nekk ne Malawi amul tilim parce que dañ la dañ la defal loo boo xam ne tilim bi mm. suñ ko fa fekkee dañ laa jàpp yow sa place dañ koo tëj NIA eh, fu mu nekk ñoo fi toogal loolu noonu yéen lan lan ngeen a def bi every mois dafa mel ni peer nit ñi daal parewuñ parewuñ parewuñ see yee loolu gis nga loolu noonu am um, Ramatulaay it's important that you know pour ñu wax ci loolu noonu tamit waaw léegi ñu ngi am anti-latent regulation 2007 mm-hmm. da ngaa gis ne boobu luwaa la bi nga xam ne you moo dee moo jox you know any doole mhm. pour ñu prosecute ñi nga xam ne you know duñ dee seetal seen seen bunti bitiki ak business yi mhm. loolu noonu ñu ngi ko enforce léegi nii you know it we are vigorously enforcing that because da ngaa gis ne comme ça am génnee leen am nañ moto free of charge yow soo munut a génn pour nga eh, sa business area bi soo munut a génn pour nga nga setal sa eh, place bi rek non ñu jox la free of charge véhicule mm. mu yóbbu la sàmbale bi loolu dañoo gis ne comme ça loolu daal loolu ah, négligence la so léegi ne ñu ngi prosecute loolu noonu vigorously daal waaw incha allah yàlla ñu ko yàlla may mm-hmm. rek nit ñi yëpp dégg ah, programme bi ñu ñu def li nga xam ne loolu moo leen war a ah, père père balaa maa dem si jaga ma foog naa am na loo bëgg a yokk rek si comm laaj lu du mm. ko doon wax mm. li dee war a loolu mooy lack of active participation. waaw mm-hmm. mooy nit ñi dañooy génn a participer actively. Mm-hmm. ni ñu ko war a jëlee gis nga opération clean the nation. Mm-hmm. xalaat la boo xam ne mu ngi jógee si njiiti réew mi comme ni ko fi kat bi waxee. waaye li xew mooy mbiri mbalit bi. ak si taal suñ dëkkuwaayee suñu waruwaay yi. you know du responsibility kenn du bu KMC du bu NIA. E du bu keneen. you know affaire yi mbiri partnership la mm-hmm. KMC def seen waala mm-hmm. NIA e def seen waala nit ñi tamit def seen waala because yow mi nga xam ne tamit yow yaa gën a ren mbalit bi mm-hmm. yow tam da nga war a am pour try naka nga sa mbalit because am na yenn mbalit yoo xam ne du a jar sax mu génn ci biti na noo ko def si biir kër gi ba nga xam ne dafa nekk meño dafa nekk meño laa nekk sax loolu tamit am na ci waaye li gën a am solo ba am solo mooy ñun Gambian si dañ am benn attitude buñ dee wax ne lii yëfi nguur la wala nguur a ko war a def yow daal amatuloo si responsabilité yow mm. fiil nga ne yow daal lii liggéeyi nguur gi la mm. soo nguur gi rek ñoo ko war a def yow kon yow ana sa rôle as a responsible citizen mm-hmm. lanay sawaru waay sa dëkka because mm-hmm. yow yow yaay nguur gi mm-hmm. doo wax ne rek because of ah ministre bi ñoo ko war a def wala KMC wala NEA ñoom ko sax ñoo ko war a def déedéet KMC wala e as an institution liggéeyukaay la ñoom duñ fa mën a nekk su fekkee nit ñi nekkuñ fa nit ñi lañ fa nekkal soo kon ñoom ak nit ñi ñoo war a bokk xalaat bokk benn éni bokk benn jubluwaay mm-hmm. ñu jàppale wante mm-hmm. foog naa loolu dafa am solo mm-hmm. te maa kooloon tamit you know I youth organisation si bari nañ fi waaye daf dee ruslu su opération cleanliness jotee doo gis kenn ku pare after loolu immediately you know nga gis leen ñuy gën a dem doxi seen yeneen soxla wala immediately after loolu ñuy am yeneen programme soo xam ne soo fa demee sax da ngaa rus because environment bi du suñ suñ suñ bii nga responsible citizen loolu dañ ko war a am pour moo tax maa ngi on ndaw ñi you know ñu gën a intensify gën a réactiver lii because léegi-léegi mm-hmm. soo duggee si kër mag ñaa fa yaa ngi fa am sa yaay am fa sa papa mm-hmm. doo expect ne opération cleanliness on dafaa jot mbalit mi nekk si kër gi mm-hmm. sa yaay wala sa papa enoon la ko génneel la ko si biti soo yow da ngaa nekk di tëdd di nelaw wala nga nekk di naan ataaya oo nga dem football yi ba pare bàyyi sa parents ñoom ñu war laa génneel mbalit bi loolu moo de tax mbalit mi dee des na la koo jox xam nga bi ko yaa ngi sital kër gi mm-hmm. ba pare addi end dee tamit xale yi nga xam ne ñoo fa nekkan dinañ am wér gu yaram loolu sant yàlla la doguma la euh, parce que soo ko seetloo si news bi ay fan yu néew si gannaaw mm. euh, ministre bi euh, kii ni minister of works mm. mun doon dem ak kii nga xam ne mooy Lord Mayor mm. waaye Lord Mayor mu ngi dëgëral foofu ne ñoom ñi nga xam ne jóge nañ si yeneen dëkka ñëw foofu noonu ñi dekka si place boobu noonu ñu doon seet si di di génnee mbalit mi si pax bi ñu ngi toog di leen seetaan. Ah, mooy dëgg loolu la dee demee dañoo toog di la xool you know di la seetaan as mel ni ñoom you know bokkuñ ci réew mi. Mm-hmm. wala bokkuñ sax si gox boobu nga xam ne foofu lañ toog yu know dafa dafa dafa doy waar. Mm-hmm. keroog man gis naa président Jammeh mu ngi dox. you know bi ma wut nii. dem laajte ku la waaw mm-hmm. gis you ay bitik yoo xam ne ñu ngi tuur ah, li fi ñami ataaya bi. you know soo gisee mbalit mi si bunti bitik. bitik bi just imagine te bés bu nekk nga ñëw ubbi bitik boobu duga bés bu nekk nga ñëw ubbi bitik boobu noonu duga ba pare mbalit boobu yow yaa koo généré te amuloo sax that audacity si yow. Mm. pour gis ne lii dama ko war a clean mu set. waaye yow li nga am rek mooy ne bi ko sof si mbedda bi la. te mbedda bi bu buur la soo yow jeexal nga si te yow yaay buur. mu ngi ne waaw mu muy dëgg ah balaa ñoo dem Mr Doucouré xaaral mau bàyyi kii nga xam mau mooy Njaga transportation bi ah mu mu mu mu yokk kaddu si lii Mr gis nai ne yang toog Jarga wah Jarga fal gis nai ne saa su ne rek yéen moom ak ak KMC e e ak NE e. ak yeneen yu groupe si comme kibi kii bi permité bi askan bi mbaleen mi mun dem lan moo tax dañ dem mbalit mi des ci gannaaw ndax toog si dañ dee dem benn yoon ñaari yoon rek. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu ñoo seetaan waaye nuyu ñu ñoo seetaan. Mm-hmm. Ah, di leen fàttalil ne ëllëg ci samedi ji mooy set setal bi dooree juróom-ñeenti waxtu benn waxtu. Mm-hmm. waaye comme ah, noo ko waxee mbalit mi de ñun national transport. Mm-hmm. Ah, ñun. gonna do that. Hmm. waaw. mbalit mi de ñun national transport ah, biñ commencé seet seetal bi benn tey ñun ñoo NEA ñoo ko start ak KMC ak ñi ko war a bokkal yëpp. Hmm. waaye ah, eh, mosuñ ñoo ootee seet seetal ñun suñu moto yi manqué. Hmm. den dañ dee joxe moto be xaj na dañ dee wax ne sax fuyal amut. den ah, kon su fekkee ne tam dafa am lu ci manqué loolu dafa nekk ci. comme ni ko suma naataange yi Euh, doomi réew mi ak ñi dëkkee réew mi parce que lii ñu national isu la ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. ba pare looy def sa bopp nga ko defal mhm. defaluloo ko kenn set set euh, euh, set dafa baax si doomu aadama dafa baax si diine dafa baax si du wér-gu-yaram mhm. ah, su fekkee ne comme nga def sesetal yow ngay doomi réew mi toog fële nga ne ah, ah lii nguur moo ko war a def te nguur gi mu ngi def lu nekk pour yow nga am nga am jàmm nga wér nga mun a tëdda fu baax lu nekk nguuram la ko defal pour nga généré mbalit génneel ko sa bopp loolu tamit bon war nga see gën a mun a góorgóorlu jàppale nguur parce que mhm. nguur mun ta def yëpp su bu bés bi jotee maa ngi fàttali ñëpp ne nañ génn ñu jàppalante parce day set setal dafa am sax ngay gis ñi nekk ci tali bi di football te boo yëg ko ñooñu kenn ku nekk bu tiyoon benn mbalit sànni ko si moto bi rek moto bi dem na waaw ñu ñu ñu wax si truck si tuuti parce que dafa mel ni time dafa jeex tak mm. seen seen truck si mm. ñan NIA e ñoo leen dee jàppale si fuel ak yu waaw NIA e ñoo jàppale si fuel waaye ñu ngi gërëm nag borom truck si ñun dañ dee aba truck rek ñun truck rek lañ dee aba e NIA ñoo ñoo bi den euh, ñun ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu euh, start set setal bi waaye kon ñu ngi gërëm borom truck yi dee abal seen truck yëpp mm-hmm. te biñ ko dooree benn tey tamit sonnuñ ci benn yoon ñoom tam ñu ngi saa yu ñu leen. waaye ba léegi yéen a ngi bugg a ñeneen ñoo xam ne tamit mun na leen a jàppale yokk a troxi. non troxi moom is enough. doy ah, na kay moom saa yu ñu rek. Hmm. kuñ oo rek di ñu abal trox. loolu yàlla dimbal na. waaw jërëjëf ah, Jarga Jarga Fall dafa mel ni time dafa jeex tag ah, Mr Dukkure loo bëggoon wax. waaw man